info7 tv ñu nuyu leen ziar leen rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne tey àjjuma juróom-ñetti fan ci ci atum ci route Ouakam bi ab oto bu ndaw moom moo fa takk ba doon ab doom loolu nag soriwul dara base française bi jur nag li nga xam ne mooy circulation bi gàllankooru ndaxte kat après bi la taxoon nag oto dematuñ woon oto dikkatuñ oto bu ndaw boobu leen dafa tàkk ba doon ab doom sapeur pompier ñëw nañ def seen kémt laay kattan ngir mën a amal fay gi waaye daal teewul borom moom daa jàkkaarloog oto ba di ko xool mu takk ba doon ab doom loolu nag gi am ci route Wokam bi fu soriwul dara base française bi ci côté bataillon euh, des terres armées sénégalaises foofu la oto bi doon tàkkee juróon nag circulation bi dem ak dikk bi mën nañ jàpp ne lépp boo gàllankoor woon bu ñu sukkandikoo nag ci témoins yooyu lépp accident bi moom bi muy am fekkoon na circulation bi xawoon na satiri foofu noonu ba tax daal oto moom dem dikk bi gàllankoor woon na lool suñu mbokki takk der yi police yi ñëwoon nañ ak gendarmerie ngir saafara li nga xam ne mooy dem ak dikk bi waaye daal nekkoon na lu jafe ndax oto buy takk ci biir circulation bi dana naqaree li jënti trap ak lu ci mën di xew oto ba moom tàkk na ba doon ab doom xam naa dinañ ci ñëwaat wéy li di ànd ak ñun ci info 7 takk ndeeru askan bi fii la du feneen